nga tënk ko ci olof rek ci jafe-jafe bi nga xamante ni moo am jamono ji ci yëmbal ak école Mari Ndiaye si daanoon bu yàgg euh, ñu war koo defar booba léegi mais defaru ko euh, ki nga xamante ni moom ministre Amadou Hott nekk doomu yëmbal doon koo euh, defaraat wala boog doon jël jéego ngir defar ko mu mel ne dañ koo xaw a gàkkal ngir mu defar ko wala dañ ko bañal dañ ko bañal loolu est-ce que mu ngi ñëwaat ci nga xamante ni moom ngeen dund jamono ji ak douche yi yàqu foofu ci école Mari Ndiaye waaw dañ lay jaay jaajëfal ci laaj bi ak teew bi donc tey vraiment dañoo am mbetteel bu rëy ci xew-xew bi fi am parce que je pense que ministre Amadou Hott ministre yu ñëpp la et ça doit être une fierté pour tout je dis même pas pour la commune de yembal Sud je dis même pas pour le département mais je dis pour tout le pays parce que ku xool li muy def gis nga ne mi ngi def li mu war a def donc su nekkee ne tey ñun dañoo dem loo xam ne nii dafa nekk ci compétence su mairie euh, population yi nga dem ba ngay gis ay xale yu ndaw nga xam ne c'est à partir de six ans ba douze ans ñoom ñooy war di def seeni besoin ci toilette yu mel noonu nga xam ne xale amul la discipline des organes peut-être ni mu ko war a amee bu bëggee tour ndox day dem tour ndox miir bu effondré di commencé di daanu nga xam ne c'est un risque majeur ñu war ko def defuñu ko population bi ñëw. pour demander au ministre que nañu jàppale pour que ces travaux soit effectués parce que c'est un ministre donc ministre boobu xam ne am na possibilité def ko mais il est conscient maanaam xamal na boppam ne du ci ressort am mu koy def parce que loolu dafa bokk ci compétence transférée yi bokk yi mairie am loolu xam na ko su ko su fekkee ne bokk na ci moom bis bu ñu ko ko waxee ci bis boobu la koy def mais mais comme moom xam na ne waru ko def te gis na ne nit ñi dem nañ ci mairie bi maintes fois pour wax ko ko e jàpp naa ne même du nit ñoo war a dem parce que mairie comme dafa bokk ci say compétence yow li bokk ci say compétence yaa ko war a saytu donc warul woon toog tey nit ñi di ko wax moom moo war a ne ñëw bu demee xool ne lii ci compétence am la mais soo budget maanaam budget bi mu am mayu ko mu defar ko bu mu am orgueil wu ne ñëw ci ministre bi ne ko liikat ci ñun la bokk te ñun ñëpp ñoo ko jaboote du politique mais dañoo bëgg nga fexe ñu defar ko def naa loolu moo doon li li yem maanaa bu ko deful population bi def ko ministre bi daal di tàppee fi nga xam ne ni moo ëmb lii lépp lu jëm ci njàngale mi muy ministère de l'éducation nationale ñaan ko maanaam informer ko pas mu ñaan ko sax di moins mu informer ko ne ko ah école Madi Ndiaye di école primaire nga xam ne xale fay jànge toilette yi dafa am problème euh, mur bi dafa commencé di daanu euh, jox ko information bi parce que tey ñaanuñu ko yàlla mais bu fa incident amee le ministre de l'éducation nationale dina ci am benn pàcc bu mu ci am donc loolu su amee moom euh, euh, le ministre le ministre le ministère de l'éducation nationale yebal fi ay techniciens ne kon information bi ma am comme tey Amadou Hott moo ko wax muy ministre mais yow man mënoon naa ko jox bu ma amoon possibilité tey def loolu ministre bi dama koy def. mais comme moom c'est une voie autorisée c'est une voie autorité la kon moom bu bu bu ko waxee jàpp naa ne ci lay gën a gaaw automatiquement ñu ñëw ñun loolu dama jàpp ne ñun ñëpp dañ koo war a rafetlu ñu ñëw euh, euh, di xool lii ñu ko information yu bii ñu leen jox naka lañ koy traité ñëpp xam nañ ne buñ ko waree traité tey lépp mu ñu faa def dara te jaaruñu ko ci hiérarchie dont ñoo yëm ñoo ñoo ñoom ñoo yilif IA mooy euh, inspection académie bi nga xam ne Kër Massar la basé wu donte ñoom ñoo ko ilif mais nit ku nekk dafa am loo koy jox muy cëram dinañ dinañ dinañ leen informer dinañ informer mairie bi euh, collaborer ci ak moom lim ci war a def mu def ko euh, ñu xam ne lépp c'est pour l'intérêt de la population mais malheureusement dañoo ñëw mairie mobilisé bàyyi ñu fa kenn tey ñëw ne loolu du fi amee kenn du dugg foofu ma jàpp ne tey bu fekkoon ne dañoo mel ni ñoom population bi génn. tey leneen lay doon te loolu bu boobaa nit ñi duñ ko gisee na mu ko war a gis heureusement ñun li naan borom borom borom borom ku gémmañ sa gémmañ di nàcc du du du du du wax jàmm euh, donc dañuy comprendre ne gémmañ yi ñoo ñooy nàcc deret ji dafa bëri moo tax ñu ñu ne garaawul nañ leen wutal alcool rek fomp ko bañ a indi histoire mais incha allah travaux yi dinañ ko def. ndax ni moom la euh, waa mairie ndax dañoo jàpp ne juste rek euh, ki nga xamante ni moom mooy Amadou Hott day def en tant que doom doomu yëmbal ku juddoo yëmbal wala juste dañuy dañuy euh, def wàllu politique parce que dañoo jàpp ne ki nga xamante ni mooy Bara Gaye potentiel la candidat potentiel la ki nga ni moom mooy opposant ki nga xamante ni moom fa nekk muy Amadou Hott mi nga xamante ni jàpp nañ ne si élection yi ñu jëm locales yi foo war a mën a samp ndëndam foofu ci yëmbal sud. xam nga politique ni ni ñu ko jàppee ñun mooy politique bu bon bi. mais politique ñëpp dañ ne c'est l'art de bien gérer le cités donc euh, defe naa ne bu ko ñun jàppee noonu cités yi mooy ñun fi ñu dëkk fi ñu nekk ak fi population bi nekk kon euh, Amadou bu doon dey politique defe naa ne euh, Baara def na fi force def na fi forcing bu nekk te mënoon nañ ñëw def forcing du mujj fenn lu mu ko jaral da koy jaral ñi fi nekk mais lu population yi moom tey bu dee ci terrain politique si c'était une question politique on va lui répondre politiquement. loolu amuñ ci lu ñuy daw mais quand comme lu population bi man moom la te moom tàmm na ndeysaan di jaxase nit ñi ak population yi euh, ñun on a compris moo tax dañ koy bàyyi ak population yi mais defe naa ne ku koy dégg ak foo mën a bokk ñu ne ah miir bii toilette yi ay xale yu ndaw 6 ans ba 12 ans ñoo fiy dugg mais toilette yi praticable euh, miir bi mi ngi commencé daanu avec tous ces risques là ku dégg loolu ñu ne defaruñ ko depuis booba. kii dafa ñëw di xool pour xool naka lañ koy defaree néew ñu day defar kooku ku ko jële politique population ku ko dégg ñoom nag dañoo ay ci euh, manipuler dañoo ay ci communication bu dul dëgg dañoo aay ci di wax loo xam ne nii euh, duñ ko teg fenn mais loolu ku ko dégg di nga xam ne vraiment euh, lu yanu maanaa la li ma gëmoon ñu war koon a def. ne jàpp ne politique la mooy tey bu amul indi woon équipe ne équipe bi dañoo ñëw pour defar école bi bu la neexee ñu ne seen il n'a pas ce droit parce que seen notre seen notre domaine ñun ñoo ko war a def donc du ko def il il veut la politique mais ki jël information joxe ko kon du ci dara mais la fait que ñu ne Amadou moo informé ça leur dérange et il comme li nga wax dañ ko jëlee politique donc fu nekk nii du foofu foofu la war a doon. donc fu mu nekk nii ndax euh, bi euh, da ngeen bëgg a taxaw temm ngir ñu saafara seen jafe parce que xale yi nekk en wala dafa am beneen yoon boo leen bëgg a jaaral. Euh, dama ne pour ñoom population bi yu bëri yëguñu sax xamuñu li mais defe naa ne ñi nga xam ne ni ñooy parents d'élèves bi seen i doom dafa jànge nii ma ko xamee bu ko ñëpp xamee woon tey mën na demee ne mais mooy li ma la rek nit ñi comprendre nañu. jàpp naa ne euh, euh, bu bu bu ñu ñëwatee di def loolu baara ak li ñu ko expliquer yëpp donte ni moom ñëwul mais dafa yebale ay nitam ñoo fa ñëw ñu fa ñëw lañ leen expliqué ku ci tëdd ba ko waxtaan woon toog ak sa ngegenaay defe naa ne di nga di nga di nga di nga di nga di nga bàyyi ñooñu ñu ñëw parce que dinañ ñëwaat léegi nag suñu ñëwaatee ñoom ñu ne leen duñ fi dugg parce que ceci parce que cela alors que li ñuy def y a de mal c'est juste pour xool loolu. Euh, bu defe naa ne lu leen jaral population bi aussi war nañoo mën a taxaw mu jaral